saraax la ñuy def ci xew xew làmb tey fekk fa Amadou Kati Diop ma génn ay révélation daal di koy teg ca problème u arbitre yi ak moom Kati Diop bi fi nekkoon entraîneur u moom la sunu làmb dalal mu wax joote yokku xarma karaw révélation de taille la Amadou Kati Diop def ci sunu làmb ku nekk ci làmb ngay amateur di mbër di promoteur koo mën di ne xaalis bi ñuy dagge ci mbër yi ca CNG la jëm millions yi ñuy dagg mbër yi CNG moo koy dugal ci gafakaam Amadou Kati Diop nee na loolu amul xaalis bi ñuy dagge ci mbër yi ci poosu arbitre la jëm mbooleem lu ñu dagge ci mbër yi ñoom arbitre yi ñoo koy dugal seen i poos dox seen dox loolee man Kati Diop maa ko ko teg ak arbitre yi xamante nañ bu baax baax baax te coowul grève li bu continuer di gis yeneen i révélation mbir mi da ci dégg leneen lu ngeen xamutoon arbitre yi ak CNG ñoo far nañ ko régler seen biir ministre bi bañ na ko ba bañ ko ko laajee dafa ne Alioune mooy gérer mbir moomee arbitre yi am nañ représentant ca CNG muy Sitor Ndour kon nañ ko pencoo sinon leneen lu war te feeñ dana feeñ keneen ka feeñ mooy promoteur ba doon dox ci ne yile combat intéressé wu ko du Bombardier Eumeu Sène du Balla Gaye 2 Boy Niang 2 yi ñu ko limal moo koy tëgg amul benn bu ko ci intéressé taxawalut combat tey taxawalut combat ëllëg moom Gaston Mbengue moo mujjee feeñal boppam ca wasaare ne man mii maa doon dox yile combat man maa bëggoon a taxawal Bombardier Eumeu Sène Balla Gaye ci saison bi waxtaanoon naag ñoom presque ba ñu finalisé jàpp dat képp ci desoon far problème yi am journal ba xam le ne moo nangu tey ka nanguwul bañul ci position arbitre yeeg CNG mooy Mohamed Ndao Tyson gannaaw Bordeaux Boy Kayre ba ci Lac de Guiers ci nekk wane nga sa position waaye Mohamed Ndao Tyson moom ba léegi kenn déggu ko journal ba xam ne moom Tyson waxul waaye nii gars di def Alioune la ko doon def ci 2007 gannaaw ba mu bëreeg Bombardier ba sàqi ba ñu nangu xaalisam bu mu mosaana toog muy ci télé wala ci rajo CNG du fa dégg jàmm waaye taxawaayu tayam bii wute nag taxawaayam ba woon ci 2007 bëlee moo doon xeexal boppam lu ne mu yekk kooku duñu wóotante téléphone sax sama soxna clinique am la doon fajoo waaye kenn mësu may day fayal boppam saa yuy dem dama yëkkati 30 000 francs jox ko ngir mu faj ci ay soxlaam bi coow li amee dama koo ne wutil beneen clinique bul fa demati bëgguma ñu gis ko fa muy dugg ak a génn ñu jàpp ne Alioune damay jàppale Alioune Sarr tey jàppale ëllëg bu jàppale di am sax man mii maa ko doon jàppale fa nuy jeexale mooy ci coronavirus bi liggéeyee semaine jàngalaat ceeb bi yenn interview yi ñu defoon ba pare moom la ñuy jël defaraat ko joxaat ko amateur yi waa Sénégal direct média uma gay ne ñun dañoo arrêté dañoo arrêté définitivement lépp luy activité teg nañ ko ci suuf ba jàngoro ji jeex Fatima Dia bu wasaar ne ca tonn ne ko man de bàyyi wu ma te fas yéene wu maa bàyyi dëgg la làmb amatul waaye mënuñoo ñàkk lu nu wax man maa ngi tànn ci yenn ci ay bés di jël yenn ci ay mbër di leen seeti di waxtaan a fës ci ëtt yéenekaay bi ñu leen jox di daje ba